xëccoo ak mbaloo waaye nag bu ñu fàtte ne délégué yooyee tamit bu ñu leen fi indi ngir nag ñuy dox diggante ministre ak ministre ñoom mën nañoo dem ba am ay jafe-jafe sax ci seen diggante ak ministre yi ñoom délégué yi Assane Samb ne jamono ji daal li guddi gàtt ak li gën a yomb mooy tabbu ab premier ministre ndax mu yombal Macky Sall liggéey bi ndax fast track gi nga xam ne moom la doon wax ci réew mi amul lenn loo xam ne dox na ko ci réew mi yéen kaay gi di Vox Populi xëy na ci woppi coronavirus ak ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ñoom nag tuumaal nañ état bu Sénégal ne dafa gëmm ay bëtëm bi nga xam ne mooy law jamono ji ci école yi yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum France foofe nag kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum wér gi yaram gi daat nañuy fësal wax nañ ne juróomi nit ñoo xam ne faatu nañu ñàkk nañu ci seen bakkan ginnaaw bi ñu jëlee vaccin bii di Pfizer vaccin Pfizer bi am na juróomi nit ñu ko jël ca diwaanu France ñàkk nañ seen bakkan kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllum wér gi yaram ca réew moomee ñoo ko xamle ma ngi ci réew mi quotidien yéene kaay gi ñu xëy fekk fa waa OMS organisation mondiale de la santé wax nañ jëm ci budget 2021 bi jege na ñetti junni ci ay milliards waaye nag amul benn réew ci dëndu Afrique boo xam ne cotisé nga ci xaalis boobee yéen a kaay xëy ci mbiri jaari sow mi nga xam ne moo ne woon mes ne menteñ andi nag ay rag-rag ci Sénégal yi jaaxle ak tiitaange akum tiis dugg Sénégal yu baree bare fekk yoo jaari sow lu wokkut ab dërëm wokku ko ci boppam la nekk niki démb la ko xam li ginnaaw ab lettre boo xam ne bind na ko Serigne Mbaye Thiam Serigne bay Thiam daal di koy fësal jaari sow la nga xam ne moom la wax ca lettre ba nee na ma ngi ci jàmm ma ngi sécurité te dem gi nga xam ne moom la dem togg na ko ba mu ñor xalaat na ci te jamono ji nee na ma ngi ci jàmmam te amul lenn loo xam ne ma ngi ko ci rëccu dawul daayul làqatu ko wul moom jaari saw nee na amul benn pression boo xam ne moo ko topp ci lu jëm ci wàllum njàng mi nga xam ne ma ngi ci ndax nag nee na ay capacité maanaam ak xarañtee fa ma du ko werante benn yoon nee na ma ngi ci jàmm moom jaari saw nee na tamit du sur menace du yëfi dafa du ci lenn du caagi ne tamit dafa bëgg liberté rek daal di koy def moom jaari saw ci yéen a gii de les échos nee na ko tonton Serigne Mbaye Thiam jàppal ne maa ngi ci jàmm yéen a kaay gi xëy sampaab laaj nee na jaari sow nag maanaam kan lay fonto moom jaari sow yéen a kaay gi délibération nee na en tout cas ba des daal waa Interpol ñoom nag enquête bi nga xam ne doon nañu ko def ci jaari sow résultat yi jébbal nañ ko kilifay réewum Sénégal yéen a kaay gi di réew mi ko du ñu xëy fekk fa leena seen moom nag mu mel ni ku yedd jaari sow nee na ko jaari bul fàtte ne maanaam gaynde nga yéen a kaay gi xëy wax ci émigration clandestine ak programme yi nga xam ne waa Union na ñu ko si def jël ay milliards jox ko réewum Sénégal ngir nag ñu xeexlu jëm ci wàllum émigration clandestine enquête yéen a kaay nee na milliards yi nga xam ne waa Union européenne jox nañu ko Sénégal milliards yooyee dafa naaw ci jaww ji la tax journal bi wax ko bokk na ci amul benn projet boo xam ne teg nañu ko ngir mu wàññi émigration clandestine tey la wàllu gën a aay yéen kaay gi di direct news nee na nag jamono jii fii ci Sénégal dafa am benn question benn laaj boo xam ne maanaam mooy déranger état bu Sénégal fan la milliards yi nga xam ne moom la waa Union européenne jox Sénégal ngir ñu saafara wàllum immigration clandestine laaj bi daal mooy laaj boo xam ne état bu Sénégal bëgguñu ko dégg ndax lu mel nii la Boubacar Seye doon laaj yéenekaay gi de la témoin nee na division de fausses nouvelles moo tax ñu jël Boubacar Seye yóbbu ko sa kaso ba waaye nag loi boobee dañu ko fee war a jëlee ndax gars yi nu leen neex lañ koy doxalee yéenekaay gi wax na ci jàpp Boubacar Seye la turbine nee na bëri na ñoo xamante ni ñoo ngi jóg di ko ñaawlo réew mi ko dëjee ñu xëy fekk fa waa société ak ñi nga xam ne ñooy xeex àq ak yelleefu doomu aadama nag interpellé nañ ki nga xam ne mooy njiitu réew di président Macky Sall ci lu jëm ci mbiri Boubacar Seye yéenekaay gi de jëlee ko ñu xëy fekk fa maître Malick Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi moom nag nee na mandat dépôt ak jàpp gi nga xam ne ñoo koy jàpp gaay yi jamono ji nañ ko wàññi ngir woppi coronavirus ji yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ci giita ngaas gi nga xam mi nga xam ne mooy directeur publication yéen a kaay gi de la démb ñoo nga woon tribunal la ko waral bokk na ci juróom fukk ak ñaari licence de pêche yi nga xam ne yéen a kaay gi de la témoin dafa waxoon ne Aliou Ndoye daf ko jox ay bateau chinois loolee loolee moo tax Aliou Ndoye yóbbu leen fa mbaxana doonee benn kaa gi nee na séddul benn yoon niki démb loolee nga xam ne mooy àtte ba ca tribunal ba ndax maître Baboucar Cissé ak maître Khoureyssi Ba démb ca tribunal ba en pleine audience dañu fa noon daggalante ay saagay ndey yéenekaay gi du l'Observateur xëy yóbbu ñu diwaanu Kébémer nee na commandant brigade ba dafa solu solu jigéen solu maquillage ba mel ni jigéen ndax dafa bëggoon a jàpp benn dealer mujjee na koo teg loxo yéenekaay gi du source a xëy na ci ay bandi ay samba sura bali yoo xam ne ñoo dajji benn boutique ca kër Njaay Lo jël fa lu toll si juróom ci ay million ñaari xale yu góor yu yoroon ay moto ñëw këf saagub xale bu jigéen boo xam ne juróom-ñaar ci ay millions moo ci nekkoon ci ndakaaru ca Ouest Foire yéen a kaay gi du l'Observateur xëy na ci aw doxalin woo xam ne bëri na ay xale yu jigéen yoo xam ne ñoo ngi koy doxalee ci Sénégal maanaam ay diw ak ay pomade yoo xam ne dañu koy faral di diw ci seen hanche ngir mu yokk ñenn ñi di ko diw ci seen ween yi ngir mu am forme bu baax ñenn ñi sax dañ koy diw ci seen daaguwaale yi ngir nag mu am forme boo xam ne fu ñu romb ñu mën leen a xool waaye am na ay jeexital ci lu jëm ci seen wàllu ko wér